salaamaaleykum sama gars yi naa leen baax patriote yi tey dama leen indil force occulte yi ak yi nekk ci nguur yi doon fay nervi yeeg ak ñi nga xamante ñoo doon recruter band yi ñoo ñëpp laa leen indil tey mais avant tout damay jaale Papito Kara ak ñi nga xamante ni depuis batolo la Joola ak ñi ci géej ñëpp bëggoon traversé maa ngi jaale seen seen njaboot yëpp di jaale aussi Ousmane Diagne di ko jaale Papito Kara ak sénégalais yi génn at népp ci géej gi pour géej gi rek laa leen defal benn entre parenthèse géej gi nguur gi ñoo tëgg dil yëpp pour booy génn booy dee gaal bu dem xam nañ ko xam na nañu fan la jëm ñoom ñoo leen di rey di leen sacrifier élection yi ñëw ñoom ñoo leen sacrifier benn gaal bu rëccee beneen gaal bi nan sacrifier ñi ci nekk lii man maa leen ko wax fii je vous dis une fii fii carte carte ngay am carte armée de terre carte boo fay duggee ci camp yi armée frontalier moy frontière yi nek terrestre ni ngui fay duggé ak bahar moy géej ben carbone tane bo dem ci camp yi ne ci géej ay île lañ défar ben ngant mami île mi ngi ci au cot fa lañ def shift la entraîneur yi ben groupe day liggéey semaine benen groupe semaine groupe bi war a liggéey semaine dem day am entraîneur ñaari entraîneur yu and ak ñom dem tok ca camp ba semaine jël ñe indi ba semaine jeex benen shift dem am yenen 4 camp yu ndaw yu wër code yépp kenn mënu fi dugg jaar ci géej fii émirat arab yi ni foo romb gis nañ la fu net nekk ñi signalé ko won leen ni leen telle personne am na ay nit ak koo mënta di doon da ngay tourné rek gis drone yi ak ay genre auto yoo xamante da ngay dem Dubai police TikTok di ngeen ko gis auto yoo xamante ne comme Ferrari rek gars yi defaree genre gaal day daw nii ci ndox mi vitesse allure bu amul fenn drone yi ànd ak ñoom ça veut dire dëkk da nga sécuriser. man justice zéro c'est les soldats ci sont ñom ñoko nangu nguur gi au courant de ils sont au courant de tout ñoko def sont ra courant ñu wax ci rek de la jeunesse ti wax c'est de la honte du bu sénégalais di mu ils sacrifient les gens

ay nit dee balaa beneen a jug ma woo ñépp ñi gàdd géej ñu ne eh lan moo tax gaal bi fan ngeen nekkoon ba muy ci sax bay diig dinañ la ni léeg-léeg lii mais ñoom la neex ñoo ko tey entre parenthèse woon loolu beneen kii la ma ñëwal leen les forces occultes mooy cinquante ten de soldats yi par parbangom dugal Sénégal ñuy civilu di jaxasoog manifestants yi nekk ak yi di wër les terroristes c'est Farba ak collaborateur am commissaire Kayta bi nekk bi nga xamante ni drogue a tax ñu dàq ci police bi drogue ñi ko daan jaayal drogue bande yooyu ak soldats yi mu doon communal bande yi nga xamante ni ñoo daan jàppi drogue def loolu ñu bëri ñu dàqoon leen Farba Ngom commissaire Kayta la gis mu dem police jëppal am na benn ñas ku naan ñas am na Chikori police centrale jëppal quatrième Grand Dakar parcelle Grand Yoff yaa des noms yoo xamante ni police parcelle quatrième am na ku naan Grand Dakar point E am na ku naan Maxa yóbbu nañ ko Tivaouane am na Ñas police quatrième am na Ousmane Pay ñu koy naan Nagam ñett ñooñu ñoo gën a yées ñëpp ñoo doon recruter bande yëpp ak soldat seen collègue yi nga xamante leen ak libéré woon ñooñu am na ñu leen di recherche Dakar pour règlement de compte ndax yu bon yi ñu defante ñoom ñu ne parce que ay terroriste xaw ma lan le grand terroriste c'est Farbon Ngom et le commissaire Kayta ñoom ñoo recruter terroriste yi mooy ñu nekk ci commissaire de police dikk am na kenn ku naan cuuju fuuta ay élément guddi la yor moom ku ndaw la nii turam naa ko lijjanti après commissaire Grand Yoff am na ku naan Toumani Badji dan ka raje woon sax après lan ko waat renfort comme renfort am na Cheikh Cissé ñu koy naan fantassin ak Bamba lui il est soldat et El Capo ki El Capo moo rayoon moo moo newoon Thiès rayoon Jakarta man ba kok ñu ngi koy wër moom it am na ñu koy wër pour règlement de compte te ñooñu bu ñu defee seen règlement de compte na ngeen tudd Pastef après yéen seen biir la yéen a créé seen i bandir créé seen i gang ñooy rayante seen bir ngeen tourné ni kañ jëñ ko Pastef pour toogaat ci nguur gi vous avez créé des bandits amna aussi brigade des mœurs ku nan khalifay moko diriger moy dirigé mooy elle a recruté jigen yu bari la recruté max leen ko tay jigen yoy ñoo panelu Pastef yëpp mel ne patriote man xam nga ñaar da jigen amay bind message nan ma dama bëgg xamanté ak yow ma xol leen man déjà dama leen xam ñen ñi damay def recherche ci ñoom damay xam carrément dañ may jox sen information ma rétan rek ñu bari infiltré nak nan ma mais ça me fait rire ñoo infiltré jigéen yu dul jeex nag duñu sol mukk tamit ñoo leen infiltré yéen panel yépp voie Pastef def leen attention bu baax jigéen yi ñoo naan wii nan ngeen def ñoo ñu information yépp presque yéen seen secret ngeen def yépp ñooñu ñoo koy yóbbu brigade facteur yu bëri yu ñuy dénoncé di leen jàpp jigéen yooyu la brigade des mœurs max leen ko tey ñu bëri lañu dolliwaat recruter Farba qui sort de l'argent et qui recrute ses mani ses malfaiteurs en complice avec l'ex-commissaire Keïta un vieux aigri bandit trafiquant de drogue et a été radié de son poste à cause de la drogue. Il paye la journée 40 à 50 000 ex-soldats et bandits ils mu recruté. 40 et 50 000 40 50 000 man ex-soldats m'ont nous recruter là bëgg a jox un conseil un bu dul woon Ousmane Sonko Vous ngeen ñii dinañ leen recru recruter ñii dàqoon nañ leen Ils fàtte leen lijjanteetu ñu leen sax former leen pare dàq ba un jour ils a ngi Ils doon tëkku Un soldat mës na leen tëkku Nous, ko yéen a jël armée entraîné ñu defar ñu nous ñu baax ngeen dàquñu les ñun ak nous la nag. yenuñ ñu jangal nan lañuy rayé nan lañuy ñuy agressé léegi agression bu am ñun la xam nga ñooñu mës na leen ko fi wax mës na am ko wax et réellement celui là m'a confirmé ex police ex ci ñom la bok néna ma cambriolage yi ngay gis ni civil mënu ko def ay soldat ñoo koy def néna des fois ci soldat yi nekk monté néna soldat yi monté yi monté sax ñom ñoo lay jox ni la telle place de am na léeg-léeg lii nga ñew ñu jox la arme nga dem defi mission bi ñew jox leen sen part ñenn ñom rek a sañ def lolu nit civil simple sañu ko def garul len ci fek il regroupe à la police centrale 4e, Grand Dakar parcel Grand Yoff Mohamed Niass de Dieuppeul on l'a amené à Thiès Grand Yoff il s'appelle Chikori et Edmond ñoo fa nekk Grand Yoff Thiès aussi ñu bari yóbbu na Thiès police parcel King 4e, police quatrième nagam mo fa nek nagam moy ki mu len don nan gaay yi ngi koy wër pour règlement de compte ñu ku gën a soxal celui de central s'appelle Baye et le commissaire Chimère maintenant il est na moy formé yenn police yi ñu recruter. après les événements on les a amenés à Thiès pour les remercier ñu nek ci di tux seen yàmba di noos lek melo tok di xaar dara am Dakar ñu def sen renfort wo téléphone la wo sen collègue yi ñu dajafa fa ray nit ak yoy rek ndax buñ duggé ba ñu yàq seen xel yi jeex na 40 mille xalaatuñu sax bu won Sonko duñu am 40 ak 50 mille yi Farba Ngom mooy génnee xaalis bi Farba Ngom c'est lui qui dirige notre police et notre gendarmerie c'est de la honte musuma gis cette humiliation là nee naa leen nguur gi li ñu nekké ni yëpp yag na len ko wax wax dama kay répéter c'est nos hommes de tenue qui nous ont trahis fi ni na la ngu amul ben cheikh puissance bo mënta am bu ñame homme de tenue homme de tenue dañuy tourné di xool li cheikh yi def nee nañu vrai dëkk pays démo pays démocratique des soldats républicains population bi day nekk sa njaboot sa doom bi nekk sa kër da leen di uuf di xool lan la nguur gi di def lu nguur gi def lu jaaru yoon nga dal sa kaw justice warul génnee sax décision homme de tenue yi taxaw Macky sàll ak justice am li ñuy def yëpp yéen homme de tenue yéen a leen ko may. ah way nee na général Moussa Fall d'ici deux mille vingt cinq trente cinq mille gendarmes. man Sonko bu jëloon dëkk man ko d'ici deux mille vingt cinq on a besoin de cinquante mille gendarmes sécuriser géej gi yëpp ak frontière yëpp ñu sécuriser ko yokk xaalis salaire soldats yi yëpp tout le monde nga xamante ne kenn dootu leen mën a corrompre indil leen ay revenu yoo xamante ne ku di nga mën am kër boo geree sa njaboot nga mën a tranquille noonu ngay loolu mooy soldat républicain il faut les mettre dans de bonnes conditions ñu moom seen bopp nag léegi ne xiifal leen sonnal leen koo ci génneel xaalis mu lox rey nit dara ci moom les vrais bandits sont à Thiès les ex soldats et civils sont là-bas par recommandation base de Thiès